ngi lay nuyu di la siyaar. tey ñëw ci li nga xamante ne tey mooy Pape ba Diop di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jàll ñëpp di ko jàll famille Diop ñëpp di ko jàll tamit Sénégal di leen ko jàll yéen ñi nga xamante ne yéen nekkoon ancien joueur yi nga xamante ne ni yéen a nekkoon ci équipe yi di la ko jàllee bu baax bu baax Papa La Chaîne ñu ngi lay siyaar tey yan loo ñu mën a wax tey ci Pape Bouba Diop. waaw Pape Bouba li ma si mën a wax moom parce que Pape Bouba xale bu yaru la parce que ñun ancien saa yu daañu ñëw fi vacances léeg-léeg daal ñu gis am ñu ñu dox ay ci matériel ay yooyu mm-hmm. waaw ku disponible la ku yaru ku teey waaw daal xam naa ko ci moom quoi ku disponible waaw waaw waaw mm-hmm. tey ñu dem ba ci ay diggante ñu social yi nga xamante ne mu ngi ko doon dox di ko defal fii nga xamante ne tey mooy dëkkam di tënk fii si asalem tey boo xoolee Pape Bouba Diop maanaam ñëpp génn ñëw di naqarlu li nga xamante ne tey mooy lycée Pape Bouba fi mu ne Pape boobu waxuma la HLM waxuma la Tëngéej mais Sénégal gi yëpp ñoo génn waaw du Tëngéej rek Sénégal gi yëpp yëpp ñoo koy kii fi mu ne. waaw xam nga man nag dama mën waxoon mais sama yor yor sama kàddu. dëgg la mooy mi ngi nii Marcel Ndoye ne woon jaraaf. Mhm. waaw xam naa Pape boobu daal ku disponible la ku yaru waaw ku bëggoon nit. Mhm. waaw loolu moom macha yal na ko yàlla yërëm ko te yërëm ñëpp Sénégal yëpp nag ñoo koy teru du tëngeej rek de bu tëngeej rek waaw merci continue di wéyal suñu diggante ñi nga xamante ne tey mooy Pape Bouba Diop di ko ñaanal yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla suuf woyof ci kawam di ko ñaanal yàlla ko yonent bi teeru fa àjjana firdaws yi di ko jaale tamit bépp boo xamante ne tey sénégalais nga di ko jaale àdduna bi parce que naan Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop international àdduna la woon mais bu nekkee benn bés wala ñetti fan sax mus na bëggal sénégalais tey mbëggal boobu ñu bëggal yàlla na ko suñu borom bëggal fële si àjjana tey maa ngi leen nuyu di la siyaare bu baax papa. waaw rafetlu naa loolu seen teewaay fii parce que lii dafa dafa am solo parce que nit moom bu defee jaloore ba wàcc liggéey euh, ngeen ñëw euh, bëgg a wasaare nit ñi xam euh, lan la doon pratiquer lan la doon dem ci àdduna loolu dafa am solo. Euh, maa leen di remercier yàlla euh, guddal seen fan ngeen yàgg fi lool te wér di am euh, mën a def yu mel nii parce que lii mooy tax ñu xam doomu adama man na Pape Pape Boubou Diop su ma rakk la mook su ma rakk ñoo doon jiyandoo bon mu jox ma cër lool man 2002 man ci staff équipe nationale laa bokkoon bu ngeen gisee bokkaande bi mu gaañoo man la ñoom El Hadj Diouf doon laxasu bu man ak médecin ñooy toog ak Jules bokkaande donc man euh, œuvré naa yu bëri euh, ci moom en équipe nationale mais xam nga am na yoo xam ne euh, yow da koy denc sa diggante yaag moom la quoi fu ñu mujjee gisee mooy fii Tëngéej bi benn nijaayam gaañoo fii bu gisee ñëpp day bàyyi ñëpp ñëw sumay tànk na ma waa mais per waaw foo nekkoon ni commencé waxtaan sport donc xale bu yaru bu jox mag cër dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjuna fii daw si Pape Pape Bouba boo nekkoon fii di di wax ci moom mhm. fii ba suba doo fi jóge parce que Pape Bouba Diop monde bi la mhm. parce que koo xam ne moo jëkk dugal bi coupe du monde mhm. kooku euh, kii yam du fay mukk ci ci ci àdduna donc ñun ñi nga xam ne ñu ñu ay nijaayam dëkk Tëngéej nekk ay ancien footballeur donc dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjuna fii daw si ñun ñëpp Euh, teew nañ ci bés bi dinañ ñëw ci bés bi xarlu ko bokk ko famille bi parce que ñoom euh, frère am yi ñëpp xam nañu sama diggante ak euh, Pape Bouba ni mu demee woon donc équipe nationale bu ma nee tër rek mu ne ma ah su ma su ma tonton ngoog lu mu jàppoon da koy bàyyi ñëw toog suma wet ma nekk conseiller am donc xale bu neex conseiller la dafa am yar am teggin donc euh, Pape Diouf kenn mos dégg ci dara parce que joueurs yu bëri euh, am na euh, yu ñu doon wax ci ñoom mais kenn Sénégal kenn mësul ne Pape Diouf kenn mosu ko reproché dara donc man mii wax loolu xam naa ci dara parce que lu ma lu ma fekk la parce que man depuis Sénégal bu ñuy dem Caire 86 laa commencé nekk en équipe nationale donc sant yàlla yu bëri fekk na ma fi mën naa fi wax yu bëri yoo xam ne du ma fi jógee mais nag ci gàttal. ah ñun daal dañ leen di ñaanal yàlla seen tele bi eh, yàlla yokk ko ba pour lu raw seen njort Euh, Pape Bouba nag euh, sportif yëpp euh, teew nañ ci bés bi ñun fii dañu am amicale des anciens footballeurs de Rufisque ñëw nañu président bi mooy laay seen mooy doog a ñëw nii donc moom joué na avec toutes les générations joué na sax ak Pullo Pape El Hadj donc kooku tamit jar na ngeen ngeen laaj ko lu mu xalaat ci bés bi donc lii daal ñëpp xaj nañ si ci gàttal maa leen di gërëm di leen sant prochaine fois dinañ gën a yaatal jotaay bi quoi merci jërëjëf